dal leen ak jàmm ci yenn kaay talaatay tey gi yenn kaay Sénégal daal dinañ aadu si ponk yu bari li ci mel ni politique mbas mi di coronavirus bàyyuñ benn yoon ginnaaw jafe-jafe askan wi enquête lañ koy tàmbalee moom li mu yeewoo mooy doxalin bu bees njiitu réew Sénégal président Macky Sall yenn kaay bi moo ngi xamle ni Macky Sall de jamono ji ab la ndax tas na opposition bi wala wàññi na seen doole tribune moom si wax jooju la ñëw waaye nag defe naa ne Macky Sall bu moytuwul si tànk Abdoulaye Wade la nar a jaar te sa mu dugal boppam xam ci lum xamul las quotidien moom waxu Issa Sall mu fi mujje woon si wootee la yeewoo moom nag daa dina xam le ni Issa Sall dafa bëgg a taxawal parti boppam ginnaaw bu mu génnee si parti bi di PUR waaye nag am na ñu ragal Issa Sall moomu dem fekk ji président Macky Sall yéen kaay groupe Futur Média mu ngi xam le ni ki nga xamante ne mooy njiit CESE bu bees bi di Idrissa Seck jamono ji mu ngi xoolaat doxalin Aminata Touré mi nga xamante ne moo fa nekkoon loola waaxal politique wax ci wàllu xeex mbas mi di covid 19 yéen kay lu quotidien yeewoo ko ngir xam le ni jamono ji dee ay réew yu bari li ci mel ni France Grande-Bretagne ak li ni mel ñoom ñëpp daal di nañ tàccul réew mi di Sénégal mi nga xamante ne ginnaaw bu mu bëreeg mbas mi di coronavirus ba daan ko yéen kay l'observateur si wax joojee Abdoulaye Diouf saar di jooru ngi dënk wàllum wér-gu-yaram la jox kaddu moom Diouf Sarr xamle na réew réewum Sénégal dinañ jot si vaccin bi nga xamante ne wala si ñàkk bi nga xamante foofu ci bitim réew si fan yii ni émigration clandestine wala ñu naan tukki bu jaarut yoon moom la ñuy fekk ci biir libération mi xam le ni ab beneen gaal moo suuf foofu si waaxu Cap Vert te ay nit yu bari ñàkk seen bakkan ñenn ñiy jël si ay gaañu gaañu yu metti te bokk na si ñetti xale yenn kay Front de Terre Walf Quotidien moom lu mu yeewoo mooy ñakkum ndox bu jéggi dayoo fii si Dakar te lool nag mi ngi gën a amee si jàmmulaay Grand Yoff ak li ni mel tàggat si candidature Augustin Senghor si njiitu kaaf di kuréel bi nga xamantene mo ngank lepp lu jëm ci football fi ci Afrique loolu waxal ñu def tunjek l'autre match de mettre Senghor mbokk yi li mo fi gën si